¡Año! salaamaaleykum gannaaw buñ sant yàlla julli ci yonent ci beneen yoon ñu ngi fii ci kër honorable Halifa Sallah madame Sallah ñu ngi lay nuyu waa Ousmane Diouf jógee ci Gambian Talent Radio ci America first time ñu dugg ci rek ci réew mi ñu ne foog ñu ñëw ziare si tonton Halifa ñuy seet rek am ndax mu fi ndax nekku fi dafa génn oh ok mhm. waaw ah, ok mhm. ñu ngi lay bu baax a baax am kañ nga foog ne si la fi nekkaat timis dafay nekk dibéer la dem ok yaa baax na jërëjëf waaye na ko waxin ni jataay bu am solo ko fekk si ah kay xalifa mhm. suma brother la mhm. suma béere juddu teyo bu fekkee da nga jóg ba Amerika. waaw Ñoo ñu teew si tey di ndëwëral. egsi ci koo xam ne kenn la ci gaynde yi nga xam ne gaynde réew mi la dal na ci wax tey na ci wax dina wax jàppale. buñ fi egsee dañ fee am luñ fi bàyyi mu xam ko. waaw. nga introduce ñi nga xam ne ñoom nga àndal. ñuy ay Gambian journalist yoo xam ne. waaw outside world bi xam na leen. waaw wax ko it ne Effiou Mbaye ñëw na ci digg kër gi. du ma ne bulóot. Maram Sall ak Ali Sall ak sa Sall. Mhm. muy ndaanaan bu mag boo xam ne yàgg naa dimbalee réewi Gambia. Mhm. ci bunte yu bugg di naxari tey bu ñu ñëwee tey. Mhm. ba ñu ne Gambia am na beneen. nguur. ci dalam ci teer. ci baaxam ak wax ak nit ñu baax yi ci réew mi. la OJ wax. mooy waxi dëgga réew mi ñoo ko bokkal. réew mi ñoo ci ànd nekk benn. xalifa Mhm. ku ko dégg dégg waa ji bu ko déggul dégg waa ji. waaw magam demee na si. Mhm. Mhm. Ah, bii bu njëkk suñu xale yi jigéen yi ñëw fi pour interview ko gannaaw bi nga xamee ne gagné na élection bi keroog gars yi nañ fi waxtaan ak moom àdduna yëpp seetaan ko ñu bég ci loolu ah, tey nag ñu dellu si waxoon rek pour ñoo def ndewenal seet rek ñoom ñi nga xam ne ñoo yor réew mi ci jamono jii. naka lañ tëddalee naka lañ doxalee naka lañu defee seen i julli loolu la rek ñëw ziare leen comme ni ko oncle waxee dinaa fi bàyyi suma kàr incha allah su ko defee ñu ñëwaat waxtaan ak moom rek ci beneen jamono waaye ñu ngi lay bëggee bu baax a baax ah, ñu dégg jàppale yi nga xam ne moom nga nekk di jàppale oncle ndax ñu ne suñ nee góor. baax na. Mhm. jigéen nga ca booram ca gannaawam ca booram. kon boo ñu ci seen humilité ak yooyu dinañ la rek sax na si. ndax déwén na ci fekkee si at mi kër Khalifa Sall ndaysan honorable Khalifa wa sere ko dajel ko nak tan ko def ko muy um ah, député national assembly member bi ñewé gis ngeen kër gi ndaysan ni mine selaw Khalifa rek ak mi um fekkuñ ko fi fekk nañ fi soxna ci mu jox ñu ndaysan ndewenal bu duuf nii macha allah ah, waxtaan ak ñun ñu jox ko suñ um denko ko cadeau bo xamne or nañu ne dina ko jotali oncle Khalifa Ah, moom mi nga xam ne kat moom la waa Serekunda tànn na kon ni ñu leen ko waxee rek janax dafay bari pas-pas dinañ la jëndal si yeneen daanaan bu leen dem anywhere lock leen ko down ci Gambian Talents ñu ànd ak yéen ci jamono jii def ba mu baax bu leen wax dara Gambian Talents ci kaw sa kanam rek. macha allah li mooy Serekunda naag di placé Khalifa Sall makkaani Khalifa Sall. waaw waaw dinañ ko nuyu. ah booy bi jox na ma ndewenal de. ah macha allah booy bi jox na ma Salibo. waay waay. am Khalifa waroon nañ ko fekk waaye dañoo bett suñu gaay rek ci dem seet naka la gaay tëralee kon nag bu tëjee mooy loolu yóbbul ma sama garant yóbbul ma sama garant moo sox lu neex. ah man kay to to to to mboq mañ bi lépp lay def. yal nañu ko passé waat ay déwén i déwén. ah kor gi neex na. ah man kay na. Mhm. ak feet na boor. Mhm. yal nañu koy def ay kor yi kor yi.